jot muy bëri sama gars bu ko defee ko ñu dem sétal vidéo bi te ñëwaat mën ci commentaire. lan la lu xew. ala commande bi. da ngay seetli rek. li ñaaw na ci doomu réewu Sénégal. xam nga man lan laa mënta comprendre président ko fal pour mu ñuy torturer wala dañ nako bo bëggé am 3e mandat fo nga toroxal sa askan nopp leen bañ ragal la pour nga mëna am 3e mandat moma jaaxal xam nga lutax moy poser question di laté lolu ndaxte sénégal dafa nekk benn dëkk bo xamné réew yépp dañ ko nawon ci la paix teg si nag ñeewantal ko ci yërmaane manam di yërmante suñu biir li nga wax moy dëgg motax tax démé ba jaay doole gi bëgg bëri suñu biir damay taxaw di poser question di laajte ba xam ñun suñu sénégal gi ñu nekkoon lañ nekk ba légui wala man daal je suis peur daal yow ya gité askan bi est-ce que war naa tax nga di ko booleeg ay rëkk. waaye nag du tax ma di ko booleeg ay rëkk. mais jiite ñi ñi rek taxaw ci xefu askan bi maanaam kenn du wax ku wax rek nga créer ko problème. pour lan. teg si nag nga recruter ay nit yoo xam ne kenn xamul ay nit kenn xamul ay dof xamul ay bàyyi ma lañ. ñu leen jaay doole di leen néewal doole. mais c'est honte. man moom damaa jàpp bu ñuy wax 16 millions d'habitants yi rek rek rek yooyu bokkuñ ci. li nga mooy dëgg. ndaxte ñi ay xaru tabaski sax ñoo leen tane. damaa xam ne xaru ci sax boo ko rendee peut sax moom dina ci am yoon après mais ñi ku ci wàcc wala nga wàcc ci kenn doo ci am bàkkaar te ku ci dee safara la jëm. dëgg du romb nopp. Ansiñ Moustapha Dramé borom safara kese li ma wax nekkul noonu ñii bu ñu wàccee fan lañ jëm. ñëpp laa wax ñoom ñëpp. safara ngeen jëm. waaye ñii kat bu mu ñu may seetaan waaye xorom naa bu yàgg waaye. man sax xaaral ma xorom tuuti parce que ñii booy boy alu butéelu xorom bi foofu en attendant. nga koo koo booy. waaye gaawal alu butéelu xorom bi. ah dee ah waaw waaw foog ma xorom ndaxte bu ñu nekk ci di dof dof lu naan dañuy jéem a dóore yooyu dof dof lu rek di hmm? di xorom rek. ndaw xorom su saf. kan moo moom xorom. kenn moomul xorom. ça c'est extraordinaire. wala ñoom dañoo yaakaar mi seen bàyyi ko <laughs>

on entend tous des humeurs. Continue. On entend tous des humeurs. On nous traite de gros gars. On nous traite des nervures. De tout. Parfois même, on entend dire que le président nous a utilisé après il nous a laissé partir, tel que ce n'est pas le cas. sa sama gars yi man sax waxuma lool de kan moo bind discours bi nervi yi. daal loolu jaaxal na ma. ma ne kan moo bind discours bi jox ko nervi yi waaye leer na ma ni maître El Hadj Diouf la. waa kii ku muy waxal. fen nga mën na xale bi. yow lan laa la mos a fenal. nga taxaw naan nervi yi. ah aw ma droit wax ne nervi Macky Sall yi yow yaa leen bind discours bi. nervi yan i Sall la. lu muy doyee nervi kon ñoom ay lan lañ mën naa nag ay élément de sécurité yu ànd ak gendarmerie parce que doy duñ doy mu ni mën naa nag ay élément de sécurité yu ànd ak gendarmerie parce que doy duñ doy ko da ngaa mën a lu nu wax nga ni nga ni yaa ko xam ta xam ak gémmiñam gu tooy di mel ni canal passoire bi kii sax man maa di wax teg moom mu may sapeur man de damaa rus yaa seexul ibrahima baba lamine diassé jël ay mbaam àll di leen recruter mel police amu fi loolu mi ngi doog a am ci àdduna guléet. moo tax à chaque instant damay poser question di laajte ba xam nervi yi est-ce que ay sénégalais lañ ba xam. duñ sax ay africain kenn xamul fu ñu leen jëlee. noonu rek la mënoon a demee kay ndaxte damaa xam ne fi police noonu la nekk ak gendarmerie. ñu dem jëli ay ñoo xamante ni tekki dara démb ak tey ñuy dal ci kaw askan wi. xam nga lii mooy wane ni mooy Sénégal dañoo mën a seetaan. du ñu leen daw. te nekkul na yéenee tax ki nekk ci réew mi di def lu ko neex. li nga wax mooy dëgg. te du ne ngeen yéen da ngeen am doole. duñu vous êtes jeune. et on est jeune. si vous êtes 250 000, nous on est 17 millions. duñu ne kenn duñu dër wala nga ñuy on va pas l'accepter. problème bi mën nañ ko régler suñu biir. amul neexal amul Vous amul shit. dëgg du ay dof ngeen du ngeen tamit Vous avez biceps. que Seexul Ibrahima Baba Lamine Dias nervi bu ci di nga julli la santaane. l'accepter..! Euh, bu ngeen di recevoir ay coup. Macky Sall du ko yëg du ko fekkee. moom kay fi mu toog lay toog. organisé wu nañu buñ ne bugguñ leen a bett noonu ñu ngi leen di rëbb. billahi kuñ ci jàpp ba tala suñu nar a gi di nga xam ne 12500 ñu lay fay jëru ko te boo si ginnee frotté 150 francs nga dese jënd nga ci fondé mooy jeex na. te bu la yàlla dimbalewul dëgg mën ngaa ñibbi laa bi siina. safara ngeen jëm. yéen ñëpp laay wax nag yéen ñu may seetaan yéen ñëpp képp koo xam ne bëgg nga lu baax buñ mës a bàyyi.

Euh, gis nañ ñëpp gis nañ ko maanaam Sénégal gépp àdduna bépp laa gis nañ ko mu def geste bu rafet muy loolu mu tabax foofu mu dëkk muy Casa Casamance bu ko defee ñun ñëpp ñu ngi koy rafetlu waaw dina wax nga leen gaa yi euh, ñëpp kontaan nañ ci quoi di wax Sadio bu ñëpp defoon ni moom kon Sénégal léegi mu avancé waaw bu ñëpp defoon ni Sadio Mané gurgeeg ñëpp Sénégal ci boppam tolof tolof yu mu dëkkee dina fi jeex kon boo euh, Sadio Mané leen rek lay am lu lay waxal. euh, maanaam merci beaucoup quoi merci merci merci merci mille fois ah, parce que li nga def moom ah, bu borom barke yëpp ci yow après Sénégal dina avancer quoi en tout cas merci beaucoup Content nañ bu baax ci li nga def. def nga acte noble def nga acte bu nice tamit. waaw ah, franchement content nañ ci bu baax a baax di wax merci beaucoup Sadio. te yàlla looy def xam na ko. gars yi nag waxoon naa leen mënumaa te dugg leen présenté Jack Pro mon frère di leen wax ne euh, gis ngeen verre yëpp may sol moom moo ma koy jox quoi franchement. bépp verre bu may sol. Jack moom ma koy jox moo nekk nii moo tax ma dikk ne leen dina leen ko présenté bu baax. numéro téléphone am 76 la 199 36 37 wala nga jël euh, numéro whatsapp am 78 122 20 32 ñaar yëpp sax am na whatsapp. numéro bi wax naa leen ko page Instagram am Jack Pro moo fa nekk Facebook Jack Pro optique Twitter Jack Pro kon ba soo gars yi Jack Pro moo fi nekk. waaw même Ndoye Ndiaye lan nga wax ci Jack Pro. ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. bu ko defee suñu maam mën naa def ñaan amiin